bi mais li fi xew yëpp. Ousmane Sonko am na ci pas de responsabilité waaye faluñu Ousmane Sonko. yéen la ñu fal. moo tax moo tax ñu ngi ci exercice de responsabilité boobu yéen ah, yéen la ñu fal moo tax nag ñu ngi ci exercice boobu. li li xew yëpp li tax nit ñi munuñ li tax nit ñi munuñ leen dédouané lu tax ñu leen di imputer la plus grosse part de de responsabilité c'est un jeu de pouvoir. moom moo lor si 17 de sénégalais un jeu de pouvoir entre deux blocs politiques yoo xam ne ils ne font pas 10 pour cent de la population sénégalaise des hommes politiques d'un camp yu def face à des hommes à un homme à des hommes politiques d'un autre camp. Maïmouna, ah, Maïmouna, pour l'élection présidentielle ñu bëgg a écarter des gens. parfois vous êtes trop juste. et parfois vous jouez à l'équilibrisme. ce n'est pas un jeu de pouvoir. en soubassement il y a aucun jeu de pouvoir. maintenant les conséquences politiques les gens les assumeront l'enjeu de pouvoir bu fekkee l'enjeu de pouvoir c'est pas dans un salon de suite beauté l'enjeu de pouvoir ça devrait être normalement à l'Assemblée nationale l'enjeu de pouvoir ça devait être au Conseil économique et social l'enjeu de pouvoir ça devait être dans un débat d'opinion c'est pas un débat d'opinion Maïmouna Maïmouna ça s'est passé entre Ousmane Sonko né en et une jeune fille qui s'appelle Adji Raby Sarr qui avait moins de vingt et un vingt et un ans dans un salon de beauté dans un salon de massage mais mën na ko soit honnête où est-ce que le dans quel pays au monde. amul jeu de pouvoir mais amul incidence politique. mais mais mais dama ne quand Ousmane Sonko prenait son véhicule avec son garde-corps dans la nuit d'un couvre-feu mais est-ce qu'il y a le pouvoir quel est le parti qui est derrière même son parti n'est pas parce que c'est lui e tubaab bi dañoo ne juriste yi nag le droit de se prévaloir sa propre turpitude bi mu fay dem quel est de pouvoir acheter une beauté cette Ndeye Khady Ndiaye là si c'était pas Ousmane Sonko dans dans sa fréquentation et dans son comportement peut-être elle continuerait à être dans son lieu de débauche et personne n'en saurait rien où est de pouvoir dans Sweet Beauté dañu wax dëgg donc mais nag en homme politique acte boo mënta poser la un homme politique. ak boo mënta posé ak loo mënta wax. il y aura toujours des conséquences. justement ça c'est beaucoup simple. Sonko moo yóbbu boppam Sweet Beauty. voilà Aminata Touré ni mu ko doon waxee on ne tient pas le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty. ah ça ça ça vous devez vraiment voilà. rappeler ça à madame Aminata Touré. waaw moo ah, ah, de mots. Euh, très réfléchi. Euh, moo yóbbu boppam Sweet Beauty. la ka fa dal dal ko mais Ousmane Sonko dafa maye porox ndollu porox ndollu boobu. ses adversaires yaakaar ne mën nañ ko exploiter à des fins politiques loolu mooy le jeu ah, mooy <laughs> loolu mooy l'enjeu de pouvoir mais l'enjeu de pouvoir c'est pas Sud Beauté xam nga dama l'enjeu c'est le